abonné leen ci seen seen YouTube Partout moom leen di jox xibaar yu wér te Partout TV abonnez yi ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di di leen dalal ci seen seen YouTube bi di Partout TV ñoo ngi sàkku ci yéen ngeen gën a wéy di abonné waaye tamit di partager ak di faral di aimer suñuy vidéo ngir ñi mën di dab seen bànneex ci xibaar yi ñeen indil waaye it seen rubrique bi ñuy woowee jàngatu bés bi mbokk yi tey dañuy ñëw ak wax ci menn mbir mu nga xamante ne nii mu ngi tenir en haleine sénégalais yépp ndax ku ne xam na ne li ñu naan trop c'est trop ndax dañu am benn état boo xam ne lañ ko fi tegee woon ak li tax mu toog fi ak li nga xamante ne nii moom la nekk di doxalee bokkul kon Macky Sall la ak gouvernement am dañu war a xam ne nit ñi dañoo maar dañoo sonn ñu ngi leen jox réew fukki at ak ñaar mënuñu satisfaire besoin nit ñi mënuñu assister population bi njàng mu baax amul faj bu baax amul tund gi cher na lépp cher na biléb gouvernement taxawul ngir indi saafara benn yoon waaye li nga xam ne moo ko yitteel du dara lu dul faagaagal benn nit moyens yi nga xam ne moom lañu jël ngir def ko ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko rien ko pour faagagal ko buñ ko defoon ci mbëbëtu askan wi baa ñi def ko ci li nga xam ne moo jëm ci développement dëkk bi ci njàng meek wér-gi-yaram geek yi nga xam ne mooy téye réew kon foog naa ne situation bi Sénégal nekkee nii tey du ko nekkee kon nag état bi dañoo war a xam ne population bi dañoo sonn dañoo maar mënuñu saa suñu xëyee indi Ousmane Sonko am Ousmane Sonko xoolal ma jeunes yi nga xam ne ñooy àbb ndox mi risque seen vie di dem c'est parce que dañoo gisatul loo xamante ne nii moo leen doy seen réew kon ki nga xam ne mooy président Macky sàll li nga xam ne moo ko fi dese kus néew war na am beneen doxalin ak beneen toogaay boo xamante ne nii moom la war a am ndax ginnaaw 2019 ba léegi doole ji am yépp mi ngi ko consacré ci benn nit dong xoolal effort yi mu def yépp xoolal xaalis bi muy yàq yépp xoolal milliards yi nga xam ne moom lañu ñu financé fépp rien que pour nuire yàq benn doomu aadama mbokk yi ñiy laaj ndax alal jooju xajul woon ci li nga xamante ni nii mooy askan wi askan woowu nga xam ne keroog ma ngay dagaan seen baat ak bi nga bëggee ñu fal la fu nekk dugg nga fa lu ne diggee nga ko fa kon léegi nit ñi tollatuñ foo xamante ne nii dangay toog ba heure bu la neex doo leen faale satisfaire woo seeni besoin assisté woo leen ci dara waaye bu élection jubsee nga bëgg a commencé di wàcc si nit ñi naan dangay def ay tournée sénégalais yi dañoo dépassé loolu nit ñi kenn mënatu nax kon mu mel na suñu politiciens yi Macky Sall ak ñi nga àndal askan wi dafa mel na dañ leen a raw ndax déjà mu ngi wàcc li nga xam ne mooy tournée pour dooleel candidature Amadou Ba mais na la leer na fépp foo mënti jaar nit ñi ñu lay xaar taxaw temm fas yéene defante ak yow ndax nit ñi ngeen jàppoon daan nax jeunesse bi ngeen jàppoon daan nax di leen utiliser ci période électorale kese su passé passé na léegi mentalité boobu moo jeex ci doomu aadama yi bu subaa ngeen indil ñu coow usman Sonko tey kii di mandataire am di Ayib Daffé dem na DGE ñu ne ko DGE recevoirul loolu yëpp fi mu toll nii ay polémique ngeen bëgg indi ci réew mi nit ñi nekk ci di débat di wax am ak bàyyi lépp rek yéen ngir mën di continuer yaakaar na da ngeen di nasaxal xelu doomu aadama yi fekk doomu aadama yi yeewu nañ waaye dafa mel ne yow i Sall yow mi nga xam ne yaa jiite réew mi yow yaay nelaw ndax dafa mel sa entourage waxuñu la dëgg depuis mille bi nga fi toogee ba léegi depuis élection 2000 bi nga fi toogee ba léegi 12 ans wax la dëgg su fekkoon da ubbi say gët te yor sa xel di xalaat tuuti nga war a xam ne sa conseil yu bari yépp ak train de vie gouvernement bu cher bi chaque jour nga fal ministre conseiller bu bees ana ñooñu lan lañ lay jariñ lu dul di la diggal naan la dóoral rëkkal tëjal forcel à quand monsieur le président Macky sàll la fin bi nga xamante ne nii mooy néewal bi ngay néewal doole nit ñi kañ lay jeex lañuy laaj ci mim réew boo demee ba ne yow dangay ngay respecté li nga xam ne moom nga waxoon mooy càmmonteeg say àq ak say yelleef ak sa kàddu ne doo présenté wu ngelaw waay doo présenté wu kon dañoo bëgg nga dem ci jàmm bàyyi ñu ak suñu réew ndox ñun jàpp nañ ne fi mu toll nii li nga bëgg wala lii sa mbëbët wala liñ lay xelal du lenn lu dul naa provoke koleeru u yi ñu yëngatu indi kaawoo ci réew mi nga génn ne réew mi amul dal ngir ñu mën a puus élection yi Ousmane Sonko da ngeen a dem ak moom si yoon yoon jox na ko dëgg appliqué leen ni ko yoon jox même su fekkee ni yéen a ngi lal yeneen pexe pour jéem ko xaar cour suprême ci affaire Mame Mbaye Niang loolu noonu ñaata dossier la fekk cour suprême yoo xamante ne ni ay ati ati ati ñu ngi nii ñu tëdd fa di xaar. ci dossier boo xamante ni ñeenti weer la fa am ngeen bëgg ko ñëw sepp ci ay dossiers yoo xam ne amoon na fa at kon ana équité ci mim réew ana tolloole ci mim réew foo leen toog naan ñëpp ñooyam justice am na ci mim réew ana justice kon ñi nga xam ne ñooy liggéey ci justice ñoom ñoo war a jël seeni responsabilité def ne jëmm jii di juge Sabassy fay ndax réew bu demee ba toll fii benn politicien wala benn président ak benn parti bu ndaw ci ay nit yu mu àndal bëgg a tenir en haleine milem réew kon ñoom ñi magistrat yi ñoom ñoo war a jël seeni responsabilité ndax la justice notamment ki nga xamante ni mooy cour suprême de la d'être une juridiction dafa nekk benn organe de régulation xam ngeen ne carrément candidature Ousmane Sonko soo leen ko bëggee tere ci mim réew dafay indi guuta dafay indi fitna te fitna jooju noonu dafa mel ne moo arrangé ki nga xamante ne nii moo di Macky ak ki njoñam waaye yéen waroo leen fi nekkal Macky ak njoñam da ngeen fi war a nekk ngir askan wi yéen ñooñu di àttekat yi waaye saa yoo gisee ñi sawar ci ab dossier rek dafay mel ne trouvé nañ seen juge bu nga xamante ne nii pare na pour defal leen li ñu bëgg. Sénégal dafa war a weesu fii kon mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje ak beneen jàngat.